suñu bokk internet yi ñu ngi leen nuyu baax a baax di leen ziar tey euh, ñu ngi fi nga xamante ne moo di mbaaw toog ak euh, Baye Assane Ngom nekk papa ci Eumeu Sène pour waxtaan ak moom rek ci li nga xamante ne moo di Eumeu Sène euh, père ñu ngi leen nuyu di leen ziar di la nga bàyyi ko ndoog suñu bokk internet yi. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm yi ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santam ah wax day wax ju rafet la te li nga wax moom. ñu yàlla boole moo gën ñu digg ànd waaw waaw yal na leen yàlla jàmmal nag mm-hmm. ñoom ñaar ba ñu dalee ànd ba léegi yàlla leen boole mm-hmm. te ñi yàlla boole mm-hmm. moo gën ñi digg ànd ñi digg ànd nag seen ànd moom dara mënu ko dindi ñi digg ànd seen ànd moom àddina ak ñi digg ànd seen àddina seen ànd ci àddina lay yem mais ñi yàlla boole ilaa yow mi diin lay doon waaw tey mu nekk ànd ànd bu rafet Eumeu Sène ak ki nga xam ne mooy Lagnang te lan nga leen dénk ñoom pour que jamono ñu gis fi mu toll wax yi côté boo ne lay fu nekk lay jógee ak yàqu-yàq yi loolu tey loolu du conseil ñoom ñaar pour maanaam li ñu dem ba fu mu bëgg egg mu egg waaw loolu nag moom nanu teewal yàlla mi leen boole woon ndax yàlla moom dara tewu ko Eumeu Sène ñi mu bokkal bari nañu mais kii la ko yàlla booleel ki yàlla boole boole boobu leen yàlla boole kenn ku ci nekk alors ko boo boo teewalee yàlla rek réeruloo waaw. kon ñu teewal yàlla ñu teewal yàlla day de nangu koo jàmm yit mi leen boole ñu digalante lu baax kenn bañ a war sa moroom ndax àddina wari nen la àddina moom wari kese la waaye nag gor moom ah boo gëmee yàlla rek door doon gor. waaw boo boo juddee ci ngor yaroo gore mm-hmm. waaye mën ngaa jàmm yàlla waay mën nga jàmm waaw waaw ñu ñëw ci euh, Eumeu Sène duggam ci làmb dañuy gis des fois ñu bëri ñoo xam ne seen doom dugg ci làmb début bi dañu doon bañ wala ñu koy tere moom duggam ci làmb naka la demee woon waaw Eumeu nag bu duggam ci làmb moom dëgg-dëgg man miy bàyyam mm-hmm. dama ko daan dama ko daan teg sama mbagg mm-hmm. dem di entraîner bi waaw mag daan yóbbu géej ñuy entraîner di dem a ko ñëw ba mu xawee maso tuuti nag ala ko muy ma bàyyi ko muy ànd ak ñoom Pape Diop saal ba di ànd xale yeeg yooyu di bëree ka dem ak a ñëw waaw ba yàlla dogal li mu dogal waaw taal bu yàlla taal nag sànni ca ma tàggan fay ko ndax yàlla alors que judd bëre bokkul ak ala ko li ñu doon moom dafa judd bëre yàlla ak ko defal muy wërsëgam fu mu nekk yàlla na fekk xéwal yàlla yàlla na mel ni jant ci làmb ji musal na ci seytaane it diine islam nag laa ko xam. moo tax bi mu ne maa ngi dem umra ji. sama xol dafa sedd guy. ndax da nga ko moom saan moom ma yóbbu woon màkkatal mu karama. ba ma demee ba jàkkaarloo kaaba gi sama xel ci moom la nekk. jooy sax def naa ko. dana nekkate yàlla ndax ba ñuy doon xale la mën a papa bu amee xaalis. dinaa la may xaalis dinaa la yóbbu màkk. ba ma yóbboo ba màkk ma jàkkaarloo kaaba ga. dafa mel ni dafa taxaw sama wet wax ak man. man nekkate yàlla daal. benn moo tax luy waa ji wax rek nga doon lu dëgg ko yàlla bàyyiwul dara waaw koroog loolu loolu moo xam ba muy xale booba temps mi nga war a am ay treize ans yooyu yàlla dogal ko ma xam ne kenn mënul ko du yàlla yàlla rek moom man waaw yaayam nag daana ko jàppale loolu ci bëre bi mm-hmm. saa yu mu ñëwee nag waa ana ama set mun a ma ama set fii rek la dem mi kër Mbaye Thiam mi ngi kër kii kii nekk fekk dem na bari ji <laughs> ah, waaye foo nekkoon ba heure bi ma dama ne mais ma dem ba ci biir tamit xam ne sportif sportif la quoi parce que man dama ko yàgg def maa ngi commencé daan entraîner kër ma assurance Malick Diop voilà commencé woon di di entraîner daal maanaam du woon du woon mbër mais daan entraînement affaire entraînement daf ma mos a neex daal waaw xam mais daawoo bëri ah mais daal nekkoo woon bëri ay jaar bëri mbappat ak yooyu saw sawaan yooyu rek yooyu du woon dara waaw boobu temps ñu boobu ngi dégg gël tàppe mbappatu mbatti pom ba ma nekk ci cinéma Risis cinéma Pax Risis foofu la mbapp mbappat ma nekkoon mbatti pom mm-hmm. waa Fass ak joolaay yeeg ñun ñoo fa daan ñëw di bëri mm-hmm. waaw booba taana daanoon ko fayee daanoon fay dem di fa bëri di fa bërantu daal waaw moom combat bi ban moo combat moo la gën a moo la ci gën a marqué ñu bëri yëpp ci ci ci làmb ji ah bërëm yëpp nag ala ko bërë bi ma gën a metti daal muy bërëm ak euh, Modou Lo waaw bërëm ak Modou Lo ala ko xaw na maa metti parce que man sportif laa. lu tax mu metti la. ah lu tax mu metti la. sportif laa quoi parce que li tax mu metti ma du dara ndax da nga aloo ko nag aloo ko ne mu demal la rek àddina moom noonu la fu guddi amee bëccëg am na fa. leer waaw guddi am na bëccëg am na doo man ne toujours yaay daan déedéet. tey ngay nga daan ëllëg ñu daan la du dëgg waaw noonu la àddina mel noo tax sax méttiwu ma parce que man sportif laa waaw. waaw bu ñu ci yëpp. ma ci gën a neex ah, bi mu dàmbalee ndey ñëpp nag muy bombardier daan fi yeneen mbëri ay Balla Gaye ay Modou Lo ñoom ñëpp mu daan leen ndeysaan yàlla woon ka ne nag da bawuma la. dox ndànk du la tere fa nga jëm parce que nit ki dafa war a war ci fasu tek te ci ngalaabu teey ñu la foo jëm nga ne muñ laa jëm soo fa eggee ci muñ moom rek di nga fa fekk yàlla te boo fa fekkee yàlla raw nga seytaane waaw kon nag toujours dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàmmal fu mu ne waaw. tey muy ko bis digganteem ak Balla mu nekk sa ñaar doom yu bëre loolu la di ñaaxee ci ci bis ba incha allah. Balla gaynde la kenn dàq ko bëri mën na bëri te du ragal am na fit waaye nag su may far daal sama doom laay far ndax yaayam ji day ñaanal na ko ndax ba yaayam gaañoo tamit kii la def yaay muy ñu masaan no xam mi toog waaw te xam naa ne sax dinga ko war a laaj alors lu ma ci xam mm. muy ñu masaan no ko mm. waaw ah, doon na koo xam ne kii na mit ndeysaan ku am yërmande la mm. fu mu teg ama seen ama seen ama seen daraan def sarax sax saa yi bëri day def day def day def ay sarax waaw def ko da nga am ndeysaan comme doom di mus ko jur kon nag lool rek doy na ki bëgg jar daw ba dee ngir ñala bañ yal na leen yàlla jàmmal waaw waaw solo père merci yàlla te yéen nga am yooyu doole rek si li wax. li père wax xanaa sant ko gërëm ko rek waxam rafet na ko waxam rafet na waaw mbëri yëpp ay doomam lañu sant na leen gërëm na leen leen di ñaanal rek yal nañ toog ba seen doom tamit aw leen ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ah diggante la ak Eumeu Sène ah seen ànd bi moom wax dëgg yàlla neex na ma kontaan naa ci mm. bu ma duggee ci TikTok bi gis leen mm. màkka moom damaa kontaan mm. yàlla bu seytaane ndox seen diggante yal na ci yàlla def jàmm yàlla suturaal nag mooy lépp mooy lépp na leen yàlla suturaal yàlla bu seytaane dox seen diggante barke yonent bi comme ni ma koy waxee rek chaque a def ak yow parce que jantal booy nga te mosuma la dégg si dara ñàkk fayda ah te fu ñu daje aussi yar ak respect rek laa gis ci yow kon war naa la ko mën a seedeel tout le temps di la ñaanal aussi yàlla suñu borom yeggale sa yéene ah di nuyu nag famille Eumeu Sène comme ni ma ko waxee di nuyu papa mi ngi toogoon fii léegi xam naa daa daa jug julli ji maa ngi koy nuyu di nuyu tantaam parce que kii moog papa ma nekk léegi nekk tantaam ah yaayam aussi fa mu tëdd maa ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àjjana firdawsi waaw di di di di ñaanal Assu Ngom Pape Ngom Awa Ngom Xaadim Souleymane parce que nag ñoom ñëpp ni ma àndeek seen rakk neex na leen parce que moo tax ñu bàyyi ñu ñu ànd ànd bu rafet bi di sant aussi jabaram muy xujja yàqu ci dara lépp lu ëma seen yëkkati jëmi ko ci man wala mu jëmi ko ci njaboot rek xujja bu ko yokkul du ko wàññi kon maa ngi koy sant aussi di ko ñaanal li mu bëgg fii ci kër gi yal na ko fi yàlla suñu borom yal na ko yàlla suñu borom defal waa di sant suma famille ah di sant sumay soxna di sant sumay doom di sant ñëpp di sant staffu Tay Shinger bi yëpp commencé ko si président muy Barkala su ma ko limee rek lim naa staff bi yëpp maa ngi leen di sant te di leen gërëm di ñaanal mbër mi aussi mu yeggale ak sagoom yàlla suñu borom suturaal ko ah suturaal julliti yàlla yëpp vraiment di ñaanal Sénégal jàmm di ñaan sama yaay aussi yàgg fi lool te ànd ko wér yàlla yàlla yàlla woyofal yaramam aussi defal ko jàmm aussi defal ko àddina bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah am na solo euh, lañan tamit di la sant bu baax a baax di la gërëm ci disponibilité bi wax dëgg yàlla ndax démb nga jóge voyage coono beeg yëpp tey teewul bi déplacé wu ñëw tey da nga toog waxtaan ak ñun te tamit waxtaan bi doon lu ma marqué ndax wax dëgg yàlla boo ku dégg li nga wax xam ne amoo ci benn parparloo lépp amul benn parparlo loolu tamit wax dëgg yàlla yombul tamit nitu dëgg moo koy def dagee nañ Gàmbi tamit wax dëgg yàlla nga defal ñu teraanga foofu toppatoo ñu bu baax a baax nit ku baax nga daal waaw ñëpp ñoo ko bokk tey a def pour jàmm ñëw fi rek nga def loolu pour mu am jàmm ndax ay doomu Sénégal ñoo fi nekk mu nekk message bu am am solo di sant ñëpp ñuy setaan kat appui nekk si groupe WhatsApp groupe Dekkal Lamb euh, les sages ñëpp ñu leen nuyu baax di leen jaar diaspora bi fàttewuñu leen di leen jox rendez-vous ba beneen ñoom incha allah ak beneen invité toujours ci waxtaanu